nangam ak nangam noonu rek moom aussi mu baax woyof bàyyi tam et tout xam nga mu nekk ko baax ku oyof moom mm. aussi c'est une sœur extraordinaire man yàlla daal daf maa boole ñoo xamante ne macha allah mm-hmm. donc dama leen di ñaanal di leen nuyu aussi bu baax a baax a baax voilà di wax projet yaa ngi si kanam amiin Oumouna avant ñu jàll ci Amina sa ressemblance ak Astar ah c'est la cinquième fois ñoo ko <laughs> forcément boo ko jógee ah, <laughs> non man dama leen topp mm. man dama leen topp man kon loolu moo tax parce que. lii nii samay samay xarit yi may àndal ogo yi ñoom aussi maa leen nuyu. ñoom ñooy ànd depuis xale bi may doon commencé dañ ma doon tooñ. Mm-hmm. ñu naan ma yàgg Assar da ngeen a waaye moo la lii moo la nangam <laughs> moo la dàq. ma leen maag Assar bokkuñu style man damay muur mu muur ñu ne ma non non da a niroo un jour ma am émission si benn télé. Mm-hmm. ma daje foofu benn DJ mu ne ma yow loo bokk ak Assar ma mu ne ma si mu ma da ngeen a niroo keroog aussi kenn ko seetaan sama benn clip capturé ko nduroog Astar yow aussi nga ñëw waxal kon ça veut dire que c'est ah vous vous ressemblez. Ah. xamante woo leen. bokkoo leen famille xamuñu ñu dara. Mm-hmm. travers les écrans rek laa xamee nii. Mm-hmm. mais xaw ma ko en tant que personne. voilà damay dégg nit ñi naan dama niroog moom dama niroog moom parce que premier jour. Mm-hmm. biñ ma koy boobu xaw ma ko woon après dama dem YouTube. xool tax ñu naan dama niroog. yow gisoon na da ngeen niroog man ko. selon toi kan moo dàq si yéen ñaar. <laughs> ba ñu ñaan ñëpp rafet. <laughs> kan moo dàq yow gis Amina yow teel sa loxo Amina bu ko dicté. <laughs> Amina moo dàq kan moo dàkk. non moom elle est belle elle est charmante. macha allah et tout bon ñun tamit yàlla yàlla voilà yàlla dénk nañu taar. voilà peut-être différence bi ak. Euh, moom mu nekk koo xam ne ah, da nga bëgg ne astar yiwul. non genre de def perruque. muurul man damay muurul da nga bëgg ne kuy def perruque yiwul. waaw ñun ñoo dàq. Moussa tasal les voilées sont plus belles. Moussa tasal tasal plateau bi. les voilées sont plus belles après dañ lay kol. tasal plateau bi d' abord man li ma gën a dégg Astar maa ngi yow dinañ def benn coalition parce que umu naa nee na Astar yiwul te man loolu du ma ko d' accord te man mii sa boole na ma ci. mais lépp c' est dans le bon sens rek tamit euh, seen ressemblance euh, toutes les deux vous êtes belles. parce que la du regard mm-hmm. rafet nga sa bëteew bopp macha allah moom tamit elle est très belle mm-hmm, mm-hmm. mais yow moom tu es très belle macha ah, allah Amina aussi elle est très belle depuis tout à l'heure ñoo ñoo ngi lay kaade yow dinaa yoole dinaa yoole Moussa dinaa ko yoole non depuis tout man maa ko nekkoon di ko wax mu ne ma mu ne ma bu ko ko jooyee demal nga wax ko ko ma ne non la fille elle est belle après moom mu ne naa ñëw ci yow ma wax la ko mu ne bu ma ko ko wax moom mais affaire bi ah. yow la intéressé wax la ko allah de même que bi dafa neex. sama yonent bi amoon na doom bu tudd na amoon na doom bu tudd Zahra ndeysaan. waaw <laughs> su ko defee yow tamit relation nga am ak Ousmane. Ousmane Gueye waaw Ousmane euh, ñi ngi xamante moom papam ak sama bàjjen ñoo nekkoon ay wóolare mm. Oustaz Aline Gueye. ku ko xam-xam ne moom kilifa gu mag la woon cene ba moom ak sama bàjjen dañoo yàgg lool sama bàjjan sax bokk tarbiyu na euh, euh, papaam ci côté diine ji comme sama bàjjen moom dafa dem ba màgg door a door a xuus si diine ji waaye loolu tarbiyu boobu mu tarbiyu diine tarbiyu ko ci lu bari moo ko permettre mu am benn doom boo xamante ne àdduna ñëpp ko xam muy Seyda Zeynab Fall mm-hmm. waaw Seyda Zeynab Fall maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana foofu suñu relation juuti na suñu judd ñun man ak moom mais li tax ma gën ko miin gën ko approché umu naa la ak Oustaz Tidiane ah, danañ gisante nag suñu am benn problème mais dañoo rusante man ak moom dañoo rusante mm. waaye des fois dafa mën tooñ mm. dafa may tooñ tooñu ngand <laughs> euh, ban production ngeen nekk autonome la ñuy doxee donc mm-hmm. signé ñu ak benn label et tout mm-hmm. on travaille juste sur projet mm-hmm. parce que euh, comme par exemple tey ku ñu soxla boo ñëwee on travaille sur un temps bien déterminé sur des papiers après ñu déterminer lii ak lii la ñuy def suñu baree après ku nekk parce que soo xoolee autoproduction moo gën rentable que d'habitude suñu la suñu la produit te d'habitude les les labels ñemeeguñu carrément les les chanteurs wala les chanteuses religieuses moo tax d'habitude dañuy am problème producteur wala dañuy am religion voilà pour religion parce que ñoom dañuy jàpp ni que peut-être fii nii hmm. marché bi doxul wala dañuy naan comme ah, Sénégal boo nekkee di woy voilà woy waa amul xaalis wala nangam kon <laughs> loolu moo tax ñun soo gisee ni ñuy demee ñun toujours on on fait avec les moyens du bord hmm. avec aussi suñuy proches que su mel ni ñoom Yankoba Sarr ñoom Mohamed ñoom euh, képp koo xamante ne daal hmm. des fois man sama xel mi day négligé <laughs> moo la damay fàtte tuuti d'habitude mais am na ñoo xamante ne daal ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw ñoom ñoo ñuy épaulé ñoom ñoo ñuy jàppale suñu waree def dara ñoom ñooy ñëw def ci seen doole def ci seen lépp ak staff bi et tout ça ñoo xamante ne maanaam li ñuy defal buñ demoon feneen dañ leen koy fay xaalis mais ñoom ils le font avec le cœur li ñuy jàppale parce que ñoom peut-être gis nañ ñu nekk suñu te bëgg nañ ñoo waa bëgg mm. ñoo jàppale mm. loolu moo tax mais pour l'instant signé wuñu ci benn maison de prod mm. nekk ñu ci benn maison dañuy autoproduire suñu bopp di dem et tout ça d'accord léegi yéen ñaar seen groupe bi mm-hmm. yéen ñaar vous êtes mm-hmm. bi moo leen boole wala euh, da ngeen da ngeen formé laa la benn groupe actuellement euh, en fait ñun euh, ku nekk danga yor sa carrière solo boo xam te ne yaa ngi koy doxal ah. mais de temps en temps dañuy faral di def soit man ak moom man ak Ousmane moom ak Ousmane ñu créer benn groupe bu ndaw boo xam ne d'habitude dañuy travailler sur des projets mooy les étoiles filantes noonu lañ tuddee suñu bopp man moom la ak Ousmane ah, waa voilà les étoiles filantes noonu lañ tuddee suñu bopp parce que ay étoiles lañ yoo xam te ne dañuy jóg rek bañ a wàcc dañuy dañuy def nii rek voilà nii rek voilà nii rek waaw nii avancé avancé mu ngi noonu <laughs> d'accord léegi mhm. Mhm. léegi ñaar euh, mhm. kon euh, mën ngeen dem ba yéen ñaar euh, ku nekk ci yéen di def dara loo xamante ne duñu gis ci duñu gis moromam quoi si si am na sax soo xoolee moom il elle a fait des sons yoo xam ne man ma ci man j'ai fait des sons yoo xam ne moom nekku ci te depuis ñu ngi àndi liggéey mais c'est la première fois ñu def duo plateau. duo ak plateau sax. Ah. c'est la première fois. ah bon yow am de. man la. <laughs> yaa ko fa am. maa ko fa am. moo ko fa am léegi Amina yéen ñaar bi ngeen commencé liggéey ba léegi. mu soo leen xam nga liggéey dafa metti mhm. mën ngeen juboo ba commencé liggéey ensemble mhm. ci seen liggéey bi comment ça a été c'était difficile ou pas parce que sànq moom dafa yéex yow da ngaa gaaw da ngay gaaw a mer moom dafa lii maanaam bi ngeen doon liggéey ensemble même ñu bokk ndey ak baay yenn saay ñu am xëccoo tuuti parce que bañ ak làmmiñ ñoo dëkk mhm. te dañuy jote yenn saay euh, lan moo nekkoon maanaam seen défi yi seen problème bi ngeen doon travail ensemble waaw